Gambia Football Federation ñoom nag bokk nañ ci seen ay naataango di tëral lépp loo xam ne nag dafa dem si wàllu football li nag dañ ko def pour xëy jàngoro bi di coronavirus gannaaw bi nga xam ne nag yeede bi bàyyeekoo na woon ci WHO Gambia Football Federation ñoom nag may nañ ay jumtuwaay yi nga xam ne nag dañ ko def pour jàppale li nga xam ne nag moom moo di xeex jàngoro bi di coronavirus bu mu doon gaaral ay kàddu ci ndaje bi ki nga xam ne nag moom moo di président Gambia Football Federation di Lamine Kaba Bajo moom nag olu ne nag tëral lépp loo xam ne nag ab wàllu football la. we are aware There is a serious series of football activities are going on though not organized. mu ne nag fa mu toll ñoom xam nañ ne ndaw yi ñu ngi play li xam ne nag moom moo di uh, uh, warga warga si seen koñ yi mu ne nag lu waral ñoom ñu tëddal football nag mooy ne pour uh, tere jàngoro bi di coronavirus pour mu law mu ne nag jàngoro bi dina mën a law ci diggante ñaari nit ñi xam ne ñu ngi play football surtout nag nit ñi xam ne nag ay nit ñi bëri lañ nit ñi xam ne nag ñoom nag bànneeku nañ ci jumtuwaay yi nga xam ne nag yooyu lañ joxe ñoom itamit gàll nañ seen kàddu. ñuy wax nag ne ñi nga xam ne nag. ñoo jiitu ci wàllum football bi liñ def rafet na torop ndig ndaw yi nga xam ne ñoo nekk ci wàllum football ci Gambia fii ñi nga xam ne ñoo ko jiitee bañ toogee ba gestu lii ñu seen xel dal lii ne dañ war a def lii pour dimbale leen pour jàppale leen soo wérutee mënuloo play football te feebar bi bu la jàppee mënuloo dem di play football. li joxee nii ku nekk na nga try nga avoid joxe loxo ngay make sure yaa ngi raxas sa kanam. ak sa ak sa jërëjëf matériel si suñ ko ji si yóbboo dina jàppale gars yi West Coast Region football ah, football bi dina jàppale ñi nga xam ne ñu ngi si football family bi dinga xam ne jàppale ñi nga xam ne ñu ngi biir West Coast Region because boo xoolee West Coast Region ñun ñoo Sénégal dañ am border te feebar baa ngi ni mel Sénégal moo gën a garaaw ni mel Gambia so lii suñ ko waree am ñu protect suñ nit ñi suñ nit Gambia Football Federation si njiitali ki nga xam ne nag moom moo yor seen wàllu jokkale gi nag ñu ne dinañ génn pour waxtaan ak askan wi lu xamal leen lu tax ñu tere football dañ ko def pour tere jàngoro bi di coronavirus pour muy law